salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di am mbégte ak contentement jàkkaarloog ñi nga xam ne ñoom ñooy les fidèles internautes de Feeling Dakar alors aujourd'hui Feeling Dakar s'est déplacé de Médina à waay ñëw fekk si fi ki nga xamante ne moom mooy Sidi Diop alors bala ñuy yëg ci ring bi man moom dama koy bàyyi mu nuyonteeg ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan Sidi nuyu nañ waaw asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa adduna asalaamaaleykum képp kuy soppee Sidi Diop maa ngi leen di nuyu nga nekk Sénégal ak nga nekk euh, foo mënti nekk ci diaspora bi rek euh, maa ngi lay nuyu di nuyu sama waajur bu jigéen di nuyu suma waajur bu góor ak waa banlieue bi nga xam ne fii laa dëkk ak suma dëkkandoo yi nga xam ne ñoom ñoo ma war di nuyu tamit waa Feeling Dakar. ayca moo ngi noonu kooku moo nekk ki nga xam ne moom mooy Sidy Diop ñu fekk si ko fi nga xam ne moom mooy euh, Géejawaay alors Sidy li ñu bëgg a xam mooy kan mooy Sidy wax ñu kan mooy Sidy. waaw bon Sidy pour commencer nit bu simple la euh, juddo Sénégal euh, màggee Sénégal jàngee fi école euh, ba mbir mi dab ma muy art di musique ma nekk artiste chanteur compositeur di di musicien di bay suma waar ba tey Sénégal xam ma may way Sidi Diop daal benn waykat la boo xam ne fii la débuté fii la defee lépp te nu mu mënti mel it sénégalais la woykat la boo xam ne sénégalais yi ñoo ko defar tey ba mu màgg te micro nekk leader kookoy Sidi Diop. alors Sidi euh, kañ nga débuté euh, li nga xam ne moom mooy musique. waaw euh, kañ laa débuté musique mën naa ni ay deux mille deux mille onze deux mille douze laa njëkkoon bokk ci benn groupe de rap bu tuddoon Kata Brand ñoom ñoo doon rap man ma nekk di def solo yi bon mu nekkoon groupe xale ñu nekkoon ci koñ bi après nag ma commencé di di wayantu man kase di dem ci simb yi. Euh, ci mbapat yi ci ngénte yi tàndibéer yi fu ñu la invité fu ñu la invité wul fépp ngay dem ngir ngir ngir wane sa bopp euh, ma commencé aussi ci ci ku ñu naan Cheikh Gueye euh, benn frère benn frère Ndeye Gueye la moom laa njëkk aw nekk di aw chaque chaque mardi après nag ma pare Salam jàlloo découvrir ma ma àndoon ak sama benn mag bu jigéen bu tuddoon Jeew Seydi turandoo suñu yaay ajaratu ba Fall yaayu Iblak yaayu ab lay Sey foofu ca Nirvana ñu dem nag salaam Diallo gis ma jël ma nag boole ma ci groupe am Nokas Band ma nekk fa ñaari at di mbappat ci ginnaawam di jàng ba keroog ni may yeewee ma ber suma dara. puisque bokkoon nga ci benn groupe de rap alors am nga expérience tuuti ci rap. waaw waaw bien sûr bien sûr am na boo ma seetloo man damay rappeurs yi sax dañuy def dara dañuy fiil li may def parce que boo seetloo sama son bi yaa ngi koy wéyantu léegi baby my honey dootuma déglu waxi wax ma loo bëgg rek ma def ko di la loof saa suma ma yeewoo ki la ne bëgguma la c'est faux s'il te plaît fais des efforts xam nga yooyu yëpp ay rime la te boo duggul woon ci rap wala nga dund rap doo ko doo ko doo ko xam man damay cons avant waaye rappeur Galsen dama leen di cons bu baax a baax a baax a yaa ngi ko confirmé ci concert u Ngaaka Blindé waaye dama leen di cons bu baax a baax a wax dama koy dund li ñuy aar bu neex la aar bu nice la te xam naa ni ku amul bopp munoo ci munoo ci munoo ci évoluer parce que aar bu metti la aar bu nice la parce que mbind mi rek ba pare fi ñuy bind dama leen respecté trop ñoom rapper yi vraiment nice dama koy dund ah alors bi ngay doog a commencé li nga xam ne moom mooy musique dugg ci aar lu moo nekkoon comportement parents yi bëggoon nañ nga nekk ci wala hmm, bon pour dire vrai fii euh, chaque tout début est difficile bi may soog a door pour dire vrai metti woon na parce que dama doon sax nëbbatu du ma ne sax bañ mais dama doon nëbbatu parents parce que xamoon naa ni bu ñu ko yëgoon du leen neex parce que njàng lañu ma santoon ñu joxe ma suma kër tante Tivaouane Kébémer lañ njëkkoon nekk jóge Kébémer dem Tivaouane suma tante ma koy nuy bu baax mari Diop yàlla na yàlla guddal fanam mook borom këram Ousmane Ba yaayu Mati Bak bébé Fam ak ak Ama Vieux xam nga maa ngi nuyu famille Babi yëpp euh, di ñaan suñu suñu mam faama fi mu tëdd yàlla yàlla na ko gënal fii foofu laa dooree suma carrière nekkoon fa mais au début euh, suma suma suma suma waajur yi bëgguñu woon nag ma way pour dire vrai jàng la ñu ma santoon parce que juddoo ma ci famille bi way juddoo wuma ci famille buy tëgg wala famille buy def art euh, malgré nag artiste la mais liñ naan don day am te cër la yàlla moo ma cërale loolu yàlla moo ne woon Sidi Diop ci école bi ñu koy fayal muy jàng bon dina ci sori mais tôt ou tard way lay def moo tax ci way laa mujj mais début bi nag pour dire vrai metti woon na parce que dama doon làqatu yenn saa ñu yëg ko dóor ma yenn saa ñu yëg ko jàppaat suma loxo yóbbuwaat ma ne ma jàng lañ la sant mais n'empêche que heure bu ma heure bu ma gisee fu neex clavier yi tegu micro yi neex dinaa fa jàdd way ba mu neex barke sëñ Tuubaa ak liñ ci daj yëpp. ak liñ ci daj yëpp nga préféré def musique lan moo tax nga préféré def musique. bon mooy li ma la wax léegi cër la xam nga yàlla mooy cër la doomu aadama eh, kenn ku nekk li mu war a def suñu borom bind na ko ba pare eh, yàlla sotti na lépp ñun rek ñoo xamul luy xew waaye yàlla sotti na tey ji am na ñoo xam ne eh, football la ñu opté yàlla indi leen ci ci musique am ñoo xam ne musique la ñu opté woon yàlla yóbbu leen ci football am ñoo xam ni peut-être njàng la ñu woon yàlla yóbbu leen ci ci làmb am ñoo xam ne làmb la ñu opté yàlla yóbbu leen ci soudeur wala mécanicien yàlla mooy xool li xam naa dafa xool ni musique bi moo gën ci Sidi Diop mu jaare la ma ci te bu dee it moo gën ci man damaa damay njortu bu dee may moo gën ci man yàlla na ma ko suñu borom gën a gën a fuulal yàlla yóbbu ma ci fu kawe sama njortu waa ci barki yonent bi. alors euh, say étude fan la waaw dem naa ba seconde ma arrêté Kébémer laa duggee école jàng ba ba CM1 ma dem Tuyawan euh, foofu laa demee sama foofu laa defee sama entrée en sixième euh, école 1. may nuyuwaale waa Tiwaawan bu baax a baax a baax ak waa kër Cheikh Awa Balla bi nga xam ne foofu laa dëkk euh, ma jóge Tiwaawan nag bi ma amee entrée en ñëw fii ci benn école ànd ak sama xarit Pape Baara mu yóbbu ma ci seen école Sésame foofu laa defee euh, sixième cinquième troisième quatrième ma passé dem seconde bàyyi. ok donc da nga pare da da nga da nga génn école rek. automatiquement dugg ci musique non dama daan jàngi dama daan dem di woy su ma xëyee dem jàngi kon dama daan aw Salam Diallo tous les mercredis. foofu ca village cristal te maa ngi jàng suma xëyee dem toog classe di nelaw non classe kay laay nelawee moom fa laay dem toog ci ginnaaw nelaw nelaw yoo xam ni waaw nelaw nelaw yu neex bu ko defee sama xarit naan ma xanaa démb da nga doon joué ma naan leen waaw wala yéen sama joué mariage sonn su ma xëyee ba dem jàngi après ñu dem xam nga rek comme ñi ñi commencé di ma bëgg di ma di ma di ma di ma teral comprendre nga ma amoon nag benn rêve que li may def nii dama ci bëgg a tekki waaye nag suñu borom dimbali na ma ba boobu ba tey musuma koo booleek lu ñàkk fa lu ñàkk fayda du sama du sama mën-mën nag wala suma ngóore fi jàmbaar amu fi ku suñu borom dimbale fi am dimbali na ma ba musuma koo booleek lu ñàkk fayda musuma ko booleeg lenn loo xam ne dinaa ko jël tàqali koog suma sago ndax loolu la ma suma ay wayjur jàngal loolu la ñu ma sant waaw. en fait euh, dama buggoon xam bi nga débuté sa carrière ndax yaa ngi fàttali ko sa première cachet li nga xamante ni njëkk ko koo yëkkati ci somme d'argent teg ko sa loxo mu leer na ni lii way moo la ko may. waaw simb simb yi nag simb yi laa commencé duma ko mos a simb yi bu musaana jeex dañ ma daan fay deux cent cinquante waaw deux cent cinquante lañ ma daan jox te da daan sedd oo oh, da daan sedd guy sama xol bi. xam nga lu waral lool. bëgg bi nga bëgg waaye dama ko bëggoon man du woon sax deux cent cinquante yi mais li ma neexoon mooy bu simb si jeexee ñu naan ma sawaay li nga way neex na waaye yow air bi neex na doon loolu képp ma ci neexoon ba pare boobu dama doon jàng dama doon mbappat dama bëggoon a mën bu ma ñëwee ndaanaan yu bari nekk fa di way ma ñëw jël micro bi nekk ci ginnaaw di aw su ma jëlee sama portable enregistré su ma demee kër ga teg di ko déglu jàng heure bi ba mokkal ko mais mariage yi tamit bi ma ci duggee suma première cachet bi ñu ma njëkk fay euh, trente mille la waaw trente mille la ma ànd ak suma jumeau borom Lyon Pape Bara te mu tamit nekk suma ginnaaw di ma aw mi ngi mi ngi Lyon ndeysaan dem seetu jabaram semaine bee passé man moom ñoo àndoon dem jëli avance bi quinze mille la avance ma kontaan kontaan imagine ku ñuy fay deux cent cinquante ci simbu di la fay ay téeméer ci simb nit jékki-jékki woo la ne yow laa gisoon nga woy fii damaa bëgg ñëw damaa bëgg nga ñëw woyal ma sama mariage ma dem ne ko waa ñun dem mariage xam rek ne damay aj niveau yi waa ñun moom mariage waaw. te demal sa bopp. waa man ak Pape Bara boobu aw ma ménagère aw ma dara waaw ñun ménage dañuy dañuy dañuy dañuy jouer mariage euh, cinquante mille moo mënul ñàkk ndaw si ne non non aw ma loolu bàyyi leen rek ma jox leen trente mille ma woo ko pa baar ci suuf ne ko baax na de baax na baax na. ku cinquante. waaw fu mu gisee fu ma fayoon su ma fayoon sa vingt ma jël. ma xolo ma ma wax ko ko baax na baax na baax na ñu jël avance bi ndeysaan mu jox ñu quinze mille ñu jaar ñu jaar fiñ bi ndeysaan maa ngi leen di nuyu waa fiñ bi fa la ñu jaar ci may ba mais kenn musul gis loolu. mais xanaa rek ngeen a xiifoon. dañu xiifoon kay. guddi la woon guddi lañ jëli woon avance bi jaar ci mayga bi xam nga rek dundu ni célibataire jaar ci mayga bi ndeysaan lekk ba suñu xol sedd xam nga man ak sama yooyu nekk ay affaires yoo xam ne boo koy fàttaliku sa xol day neex nga xam ne yàlla seetaanu la waaye foofu la ñu débuté ba tey ji xam nga ñu dem ci fu ne ci àdduna nga xam ni loolu mooy parcours waaw loolu mooy parcours bi ñu ko jëlee nag ñëw jël quinze mille yi reer ci jël dix mille yi avance euh, avance euh, borom sono bi indi ñaari sabar benn clavier benn guitare joué mu neex li ñu may ci géew gi ñu fay ko musiciens yi ñu ñibbi mais plaisir bi ñu amoon encore mooy le fait que ñuy nit ñi dañu xam ndànk-ndànk booba lii lañ doon lii lañ doon sàkku. alors sa dernier cachet bi nga xamante ne moom nga mujjee laal. ñaata la <laughs> déet wax ñu ñaata la nag comme comme déet comme wax ñu kay sa sa sa première cachet. bari na bari na bari na bari na du ma bari na du somme. yaa ma ne ñaata la. ñaata la en foofu dem ba suñu waaw si di ñaata la wax ñu cachet bi ñaata la. xaw ma en tout a xamal <laughs> mais si di bëggoon nañoo xam ñaata la nag. <laughs> ba sa yi ngay def. Hmm? yow ah yow li nga yow li nga yelloo dafa bëri. parce que jamono jii képp koo xam ne yaa ngi Sénégal fii di déglu musique sa xol mu ngi neex à travers Sidi Diop ak ay moromam rawatina yow donc lépp loo xamante ne nii rek mais mais sama question dafa leer de sama question dafa leer de bi nga mujjee laal ñaata la yow loolu noonu nga ko bëggee ay ayca loolu duñu boole bu ko defee xolal dañuy daal di jàll ci question bi nga xamante ne nii moom mooy say contraintes les dix dernières années say jafe-jafe yi nga xamante ne am nga ko ci euh, dix dernières années yi nekk suñu ginnaaw ay jafe-jafe yoo xam ne dund ko. waaw waaw jafe yi nag euh, du mënul ñàkk ci ndaw mi soog a door àdduna boo ci nekkee nekk ndaw jafe-jafe mënu ci ñàkk mais tamit jafe-jafe yooyu moo lay def góor yàlla mooy tax nga jàppanduwaat jugaat taxaw euh, ngir bañ ku la reetaan jafe-jafe ñàkkul ci suma carrière bari na ci trop sax. waaye du may sant yàlla bu baax a baax parce que yàlla dañ ne ko kan nga gën a bëgg ci sa jaam ñi mu ne ñi may faral di teg nat seet leen ma ci ñooñu te dund naa ko nag mu teg ma ko lu bari bari ci suma carrière loo xam ne dinaa tëdd ba guddi ma jooy mu metti ma trop waaye nag eh, dama daa am sama nit yoo xam ne chaque jour heure bu ma jooyee rek dinañ ñëw nax ma uuf ma dama waroo jooy yàlla bu la defalee lii kan moo la wax amut lu mu lay dencal lu ko dàq. lu la mën a xamal mooy difficulté yi woon na trop trop trop dama daan tëdd sama néeg jooy ko mu metti ma ne waa mais lan moo tax mu demee nii yenn saa nga organiser soirée def ci lu mag dégg ci sa xaalis bépp financé ko ci ñu dem ba ci jour ba am lu am bañ na mënatul am da daan metti nga ne waa man def naa ci sama xaalis bépp yenn saa sax da ngay leb waa mais def naa ci sama xaalis bépp ñu ne la amul problème muñal dina baax yenn saa nga jàpp ba ci bis ba Ah, benn affaire bu mag am ci dëkk bi loo xam ne dañ la an la nga koy annulé mënoo ko te boobu ndaw nga yoroo lu bari li nga yor da nga koy takkalaatu tuuti ci mariage yi dem def ko ci contrat la ñu signé bu weesoo jour boobu mënatuñ la jox boîte bi wala mënatuñ la jox salle bi ndaw bi nekk ci koñ bi te obligé nga dem toog nga muñaat yenn saa nga dem fenn yéeg ci seenu jàmbur wala nga dem soirée ñu ne doo dugg wala nga yéeg ci seenu jàmbur ñu ne la wàccal waaw wala wala euh, nga yéeg ci kaw seenu jàmbur videur bi jàppaat sa sa yére indiwaat la nga ne la non damay joué ñu ne la non te loolu mooy loolu daw bàyyi ba ñu woo te boobu dégg na musicien bi woo la wala mais yooyu yëpp ay affaire la yoo xam ni danga koy dund rek nga xam ni bon yoonu ndaw du gaaw et noonu la quoi il faut que ngay jàng il faut que yooyu di la dal mais lu ma la wax rek heure bu mu saana am rek am naa ay nit yoo xam ni dañuy nekk suma wet ne ma góorgóorlu dina baax bis dina ñëw incha allah di nga toog sant yàlla te ñi ngi ñaan yàlla yàlla même segam moom moo ne ku sant ma dolli la ñi ngi sant bu baax te yàlla nañu dolli dolli képp kuy waykat ci barki yonent bi yaa euh, euh, waaw waaw waaw waaw waaw nekkatuñu maa ngi koy nuyu tout d'abord bala maa wax ci moom mm-hmm. nekkatuñu euh, waaye ça ne diir pas dire que ni on est des ennemis mm-hmm. ngi ci yoonam di liggéey maa ngi ci suma yoon di liggéey li ma wax fépp rek laay waxaat du gudd mm-hmm. mi ngi ci yoonam di liggéey sëy sax am na tàqalikoo waaw sëy am na tàqalikoo doom ak yaay lu mu neex neex neex neex bis dina ñëw dinañ tàkkalikoo man ak moom dañ doon liggéey liggéeyatuñu mi ngi ci yoonam yàlla na ko yàlla defal jàmm ci ay projet ma ak li mu jublu maa ngi ci suma yoon di raqam muy suma mag ma koy sàkk mu ñaanal ma yàlla defal ma jàmm avancé ci kanam ndax bu dara dul dara famem suma ay mag lañu mm-hmm. ah, jabaram daf maa bëgg famem ñëpp dañu maa bëgg ma respecté leen trop ñu respecté ma tamit delloo ma ko mm-hmm. erreur mënul am wala yenn yoo kii affaire yi dete ku nekk bëgg xam lan lañ jotee wala li wag li mais mag ak raq lañ man maay raq moom mooy mag mm-hmm. yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ma ko li mu bëgg suñu borom defal ko ko may sàq mu ñaanal ma ma avancé la vie continue ay amin eh, yaa waaw si sama côté uh-huh. du ma sa ci kàttan suñu borom. waaw. sa contrat ak euh, Subatel. waaw dañ bëggoon xam kan moo dox loolu yow yaa dem envers Subatel wala Subatel moom moo démarché loolu. Subatel Subatel daf ma yàgg daf ma yàgg jàppale ci lu kenn xamul. musuma am événement te Subatel dugalu ci loxoom. waaw mag ak raq rek lañ lañu sequñu contrat ñu dara ba si sama grand théâtre bi mujj ak Kanji production ma koy nuy nuyuwaale bu baax suma frère. Mhm. Euh, artistes yi bari nañu mais daal souhaité ñëpp ne événement bi yow yaa ma koy defal ba ci suma événement bi damaa yëkkati bolok taal sa moto dem ba kër suba teel tàpp ko mu jóg ma ne ko bolok bi pour yow la yaa koy jënd mu yëkkati bi teg ci sama loxo ne ma bugguma xam ko jëla nga may ko Sidi Family booba ànduñu raq rek la ñu sekk man ak moom nee naa encore une ay contrat ak ak yellee contrat day jeex su ànd ak moom damay ñaan yàlla bu mu jeex suma mat la suma xarit la suma frère la Lébu Maalim Maram Ndoye Lat Joor maamam ñoo bokk benn maam bokk benn sant muy suma doom baay suma xarit ma koy nuyuwaale bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax waaye tamit ki gën a rataxal ànd bi Omaro ci la bokk malgré amoon nañu relation yu bien am nañu relation ma koy déplacé damay def concert woo ko ne ko Matar il faut que nga ñëw xool logistique bi son lumière ba xam nice na lan nga bëgg ñu yokk bu ñëwee wax ci xalaatam ba ngoon jot mu seetaan ñaari morceau ñetti dem këram dox na suñu collaboration ba man ak moom ñu ànd di liggéey liggéey boo xam ni euh, macha allah ku ne xam na ni euh, ñi ngi def ay affaires yu rafet ñi ngi liggéey ay morceaux yu nice muy génn sénégalais yi di gën a like sénégalais yi di gën a kontaan ma koy ñaanal yàlla yéene bi mu am ba jël ma teg ma ci wetam pour ñu liggéey maa ngi ñaan yàlla yàlla na ko suñu borom antal yàlla suñu borom def ci ma am ci lu kawe suma njortu moom tamit mu am ci lu kawe njortam ak bépp artiste bu nekk ci label bi ci barke borom Tuubaa bon suma relation ak Omaro fi mu jógee euh, ci cant gi la mu nekk ci cant gi di way lu neex ma yàgg ko bëgg nag sama xarit bi ma doon bi ma lay wax léegi Pape Bara ñoo daan ànd ci cant yi dama ko wax man kii dama ko bëgg daa civilisé euh, bu ñu jógee ci loolu suma première Paris en 2017 euh, man ak moom ñoo bokkoon vol ñu àndoo ceeg raxu raxu ndeysaan maa ngi koy nuyu bu baax suma grand grand bu baax suma premier événement en 2017 31 décembre 2017 moom moo ma yóbbu ñu ànd man ak Omaro bi ñu wàccee aéroport ñoo ñu ànd dem di ndékki ji ci fajar gi ma woo sama jur bu góor di ko wax ne egg si naa ci jàmm ñuy waxtaan ma ne ko moo ne man ak Omaro sax moo toog mu ne ma ah Omaro kooku sama mbokkum taalibe la jox ma ko ma jox ko Omaro ñoom ñaar Omaro déplacé wu lu yàgg wax ak sama papa ñëwaat na ma bis ni ki tey def naa la ci sama biir xol bi ndax yow sa papa Omar un sama toomaa la sa papa Omar la tudd man may Omar ba pare ñu bokk Serigne Cheikh Béthio Serigne Saliou kon yow bis ni ki tey suma ma raq nga suma ma jarbaat nga suma doom nga def naa la ci sama xol yaay suma waykat 2017 nag ñu commencé ànd bi dëgër te dara ñaawut te yàlla bu dara ñaaw lu mu am jox ma fu mu jëm yóbbu ma lu xam wax ma barke borom tubaa ma koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér borom 3STV yàlla na tele bi dem ba nekk télé bu sut ci àdduna. Omaro boo ànd moom da ngaa war a ànd ak moom puisque noonu la demee. Hmm. boo ànd moom rek da ngaa war a ànd ak moom léegi euh, gis nañ la. nga nekk ci concert u Sidiki Diabaté Mali xamuñu nag coïncidence la xamuñu invitation bu jógee ci Sidiki la loolu tam bëggoon nañ nga leeral ci tuuti. waaw euh, bon Mali nag dama fa demoon pour suma contrat wu bopp bi ñu tabaskee ba ci ba ci surlendemain bi dama fa amoon euh, contrat boo xam ni waa Mali ñoo ñëwoon fii benn boîte bi ñuy wax Biblos Club ñoo ñëwoon fii ci salle bi fii ñu toog signé contrat bi bi ñu tabaskee ba ci suba sa laa dem ci ginnaaw suba sax ma war a ma war fa joué bi ma fa joué nag ba pare wax dëgg yàlla waa Mali ñëpp génn wuy sima ma sénégalais yi sénégalaises yi waa Mali maliens yi maliennes yi ñëpp génn population bi yëpp génn ñëw wuy si ma vraiment ma ànd ceen ak Papa Ndiaye mi nga xam ne moom engagé woon affaire yi ma koy remercier waale bu baax a baax a baax si di ki yëg loolu kontaan parce que bi ma fay dem peut-être déggoowuñu euh, je savais pas ba xam xamoon na damay ñëw wala suma contrat suma liggéey moom fa yóbbu mais peut-être ci oyof tàngeem ci ci ci yëg doomu aadamam ak bëgg Sénégal ak bëgg artiste sénégalais yi euh, parce que ku ne xam ne ni moom dafa bëgg artiste sénégalais yi da koy wax sax man damaa bëgg mbalax bi mu yégee ne maa ngi ci dëkk bi joué naa euh, mu nekk guichet fermé neex ba ñu nekk ci biti moo ëppoon ñu dugg mu kontaan ci yëkkati téléphone am woo ma ne ma ne ma naa ñuy studio mi ngi studio instant yi man liggéey rek laa bëgg liggéey rek laa xam musique laa bëgg man ne gars yi mais pourquoi pas aca kaa leen ñu dem ñu dem studio toog waxtaan ba am benn projet boo xam ne commencé nañ ko mais comme que eggagul euh, bëgguma di ci développé bu baax a baax ba am benn projet boo xam ni commencé nañ ko mu tombe woon ak mardi euh, jour boobu noonu mercredi aussi ñoo fanaanaat ba fajar ci mercredi bi la la ma ne damay joué concert bu mag euh, sargal ci waa Mali parce que depuis ñu nekk en confinement ba tey joué wu ma man ma waroon a ñibbi jeudi mu ne ma je préfère bien kon ko samedi la nga bàyyi woon ba dimanche nga dem parce que dama la bëgg a def artiste invité surprise bi nga ñëw parce que Mali sa dëkk la. ma ne ko amul benn problème parce que bu nekkoon Dakar it may xewle su ma ko nee toogal dama am suma grand théâtre wala dama am CICES wala dama am euh, whatever fu ma fi war a jouer day bàyyi itam toog ci suma yaakaar man tamit ma ne gars yi amul benn problème parce que bëgg yëg moo koy fay comme que dafa bëgg artiste sénégalais man verte jaune rouge mooy suma couleur ak étoile bu vert. suma suma suma couleur réew laay laay défendre kon ko da koo bëgg ba ne mën naa toog amul problème nañ toog fii ma représenté drapeau Sénégal ñu toogaat yokk suñu séjour toog ba samdi ñu dem def ak moom duo boobu nga xam ne répété wuñ ko sax bi ma ko waxee dama ne ko après ok amul problème ma dem suma hôtel toog nekk ci yu ma war a nekk am ay affaires yu ma fa doon régler dugg aussi ci suma ay mbokk nuy juwaal leen suma famille yaay suma tonton yi suma suma tata yi nekk euh, foofu ba ma koo dem nuyu leen ba samedi ma ànd ak gars yi solo dugg suma oto dem wax dëgg yàlla mu nekk dio boo xam ne sénégalais yi ñëpp ko bëgg ñëpp ko waa ñëpp ko like moom it mu kontaan ci trop trop trop trop trop. waaye kontaan ci trop ma ñëw sénégalais yi tamit ñoom ñëpp kontaan ci ñoom ñëpp bég ci ma leen di wax incha allah nañu xaar nañu xaar featuring original bi très bientôt incha allah. alors euh, sa relation ak yeneen artistes yi lan suma relation yeneen artistes yi waaw relation ñenn ñi mag ak raq. ñenn ñi suma ay grand frère lañu euh, euh, ñu seq ñun ñëpp ay relation yu bien non non ma benn artiste xaar ma yàlla. mais dafa am loo xam foog nga leeral ko ñi nga xam ne ñooy sa fans yi. parce que actuellement. Mhm. yow ak Wally Seck la ñuy concurrence. ah bon. je sais pas nag yéen a ngi koy dund yéen ñaar wala fans yi ñoo koy dund. Wally Wally nit ku baax la di suma nawle artiste di di di di di frère. nekk ci yoonam di di bay waaram man tamit ma nekk ci suma yoon di bay waar mu nekk ku baax ku yaatu wax dëgg neex yàlla jàmm rek la ñu séq mu ngi yoonam di liggéey ma nekk suma yoon di liggéey wax dëgg yàlla damay faral di wax benn affaire ba ñu juddoo ba tey géej gi gaa yaa ngi napp te heure bu ñu ñëwee indi jën te ba tey jeexut ku ne mën ngaa napp togg sa ceebu jën defar ba mu baax te boo xëyaatee demaat géej fekk moo li indiwaat jën bañ juddoo ba tey gaa yaa ngi gaa yaa ngi napp te jën jeexul ku ne mën ngaa jël sa wërsëg ba dem mais daal pour dire vrai amuñu problème mag ju baax la waaw ma koy ñaanal yàlla aussi ci carrière am yàlla na ci gën a avancé parce que ku ku def dara ci musique Sénégal la yàlla na ko yàlla defal jàmm.